ndax <laughs> waa ay demande ngay fay euh, di nuyu waa Sénégo yëpp di nuyu internetu Sénégo yi ah di leen wax ne nag tey maa ngi rafetlu déplacement bi ngeen def ñëw ba sama kër euh, pour Saint-Valentin bi donc Saint-Valentin oblige moo tax ma def ni rek rouge noir yor bi pour bégal internet yëpp. <laughs> ñu la fekk nga def sa rouge noir bu baax. Mhm. tey fooy passé Saint-Valentin bi. <laughs> waa bon man na xam nga euh, Saint-Valentin pour man sax chaque jour la donc euh, li ñuy mbëggeel moom pour man chaque jour lañ ko war a féete xëy na rek euh, dañu jël bis bi rek jagleel ko ko mais man bon spécialement sama Saint-Valentin je le passe famille maa ngi fii maa ngi sama kër parce que tamit xam nga amour moom ñëpp a ngi ci biir. Mhm. amour pour suñu frères yi suñu sœurs yi suñu famille yëpp suñu parents yi. ak tamit ku ci nekk ki ngay bëgganteel. Mhm. mais nag man moom maa ngi fii sama kër. <laughs> <laughs> waaw. <laughs> léegi en général Saint-Valentin bu la fekkee à l'extérieur comme sa famille nga ko tàmm di passé. Mhm. comment tu fais pour dundu bés bi. waa xam nga man nag man sama famille euh, yàlla def na ni euh, maak ñoom chaque jour dañuy dund amour. bañ nañ ko ba man dañ may woowee jinne sax ci kër gi ndax man moom maay xumbal maay déconné maay def ay affaire xam nga donc te loolu yëpp c'est dans le cadre de l'amour bu ci amour amul woon yooyu duñu ci fekk donc on est une famille très très unie ma bëgg leen lool nag lu ma leen bëgg doyul Coqueville mm-hmm. mm-hmm. dañ koy passé li nga wax ni mm-hmm. xanaa dina am benn Saint-Valentin boo xam ne waa nga ko paaseel <laughs> exactement nga nettalu boobu non boo dund eh. ak waa ji mu génnee la xam nga queen bi Saint-Valentin je ne me rappelle pas je génn ay Saint-Valentin yi non ça c'est pas mon truc quand même. kon bokk doo génn jour boobu. Hmm, bon xëy na dina jot jotagul aussi defaguma ko aussi waaye est-ce que am nga cadeau saint <laughs> xam nga c'est pas c'est pas le plus important. parce que cadeau aussi bu naree xaar benn bis bi rek ci at bi jox ma ko day doy waar. Mhm. <laughs> mais xam nga cadeau bu gën a rafet mooy li ci xol bi. Mhm. bëgg la yërëm la xam nga teg la sa place loolu mooy cadeau bu dàkk quoi je pense donc euh, le fait que nit ki dina manifester son moo déjà c'est c'est c'est quelque chose quoi tu vois donc euh, le reste le matériel et tout c'est pas très important ci man quoi donc man yooyu yëpp ay détails la. mais xanaa journée bi dina la wóor kii nag mu lay souhaité. <laughs> ayda de waaw ayda mii man ayda fu ma jëm ak ayda ay waay waay waay waay. mais jour bi lu mu lay souhaité joyeux Saint-Valentin am nga. neex daal fii daal xoolal happiness rek. lépp jaarul xanaa benn way wala genre yooyu. wala yow ko wayal. bu baax. waaw ban ban ban morceau nga way boo xam ne moom nga sentir ne way boobu moom sa waay nga ko way. ah femme sauvage rek. xam nga dama ne xale jigéen ñëpp waxal ñu si tuuti xam nga dama ne xale jigéen ñëpp nañ sauvage. ah donc euh, boo amee sa waay da sauvage rek di ko bégal lu mu laaj ñu def ko si. Mm-hmm. waa loolu laa bëgg. femme sauvage bi ñamal ñu tuuti. naan ko am na fi ma ko ci naan. yàkkamti naa guddi joot ba nga dellu see ma yëkkati la ba ci kaw jël la teg ci suuf baby mbaa xam nga ni dama laa nopp. <laughs> femme sauvage. baby dinaa doon sa femme sauvage soppaliku rabu àll bi nga gën a ragal di la xuxal ba ngay jooy <laughs> waaw waaw mbaa xam nga ni. dama laa non. waaw ñu que ñu la gis benn vidéo. Mhm. ñu génn. Mhm. ñëpp kooku mooy Prince Talla kooku su ma wax ci moom sax du pare dafa nekk sama frère nekk sama xarit disponible loolu lu ma ko mu ñëw du sama copain. c'est juste un ami un frère en plus kooku dan doon foo dañ doon foo rek ñu ne xaaral ñu jàppi sax xam nga ba ma dama bëri foo nag man moom foo ma fekk yëf damay def yëf xale sax dama bëgg ay foo ay kaañu def lii kaañu kii xam nga tout ça mais mais mais mais mais du sama copain. waa nee naa ne que nit ku nekk am nga sa bijou rek denc ko te bëggoo kenn xam ko. Mhm. te Queen nag loolu lay dund donc kooku sama frère la moom il a sa vie ma euh, je salue au passage euh, sa fiancée moom mi ngi dund dundam vraiment moo koy souhaiter mu heureux ci vie am parce que ku baax la c'est un gars très très sympa que j'estime bien mais dañ doon foo rek moom sama Valentin. mais pourquoi wu la woon wala dara. wala da ko rek la woon noonu rek. ben on était ensemble jour boobu am lu ñu doon def am lu ñu doon pare. waaw moo tax ñu doon def vidéo bi di foo noonu rek mais après di ngeen comprendre. après Sénégalais dinañ comprendre. ñu benn anecdote sa Saint-Valentin boo dund. mën na nekk sa famille say fans boo xam ne rek marqué na la Saint-Valentin boobu noonu. je ne rappelle pas. Mhm. benn benn affaire bu spéciale non. Mhm. man Saint-Valentin je le passe naturellement comme tous les jours. Mhm. waaw parce que man mbëggeel dama koy dund chaque jour daal. su ma yeewoo da koy dund di ko nooyi. di ci lekk di ci naan. kon xam nga loolu bëri na di ko tëddaale donc kon mënuma xaar benn jour rek naan am naa ci lu spécial. d'accord léegi mhm. nga xool caméra bi lancer message ku la neex ci jour Saint-Valentin bi. <laughs> waaw euh, Saint-Valentin bi nag euh, damay souhaiter sama fans yi ñu gën a yokk euh, naan dañu bëggante sax bëgg seen artiste mi ñu gën a yokk ko parce que nee naa ni àdduna bi tout est amour comme bi ñuy wàcc sax ci àdduna dañu ne aimez les uns les autres di wax aussi sénégalais yëpp ñu yaatal xol yi ñu rafetal ko parce que fii rien n'est certain ni éternel àdduna dafa gàtt te dara jaru fi ñaaw à chaque fois li may wax rek damay naan bu ñu xaar ba mu trop tard ba ñuy yërëm nit di ko waxal lu baax nañu rafetal xol yi tàppe xol yi parce que ça ne rien quoi nee naa ne am na yoo xamante ne ça ne paye pas daf lay gën a tardel kon nañ ko rafetal comme dafa gàtt ñëpp bëggante ñëpp bëggante ñi bëggante nag ñiy dund amour aussi xale góor yeeg jigéen ñi di leen ñaanal aussi yàlla sàmm leen may leen longévité seen seen couple yi am benn longévité ah yàlla musal leen ci cat ak làmmiñ ak saytaan yi ñuy dund amour quoi parce que amour dafa neex ah waaw man aussi sama valentin <laughs> maa ngi koy souhaiter tout le bonheur du monde parce que xam na ni moom man dama ko nopp <laughs> <laughs> Merci. Merci.